xaaral xaaral yóbbu leen ko. kaay kaay hey kaay kaay bu demal Laurent kaay Laurent kaay kaay kaay leen eh kaay. Laurent kaay taxaw lii nag drapeau bu Boucher Ketchup ñaari mbëri foog ñu yëngal Boucher ñëw yëngal. foog ñu jënd drapeau nag. ñu ngi lay nuyu di la ziar. sant yàlla. yaa di jégalu ñëpp. ay eh, gaan wan isot ay xaaba dirim. tous. dara du xew man zooke laa damay beñ ba xëy dee du ma topp si ginnaaw ko yàlla bind. zooke ngay bëreel nag ñu ngi lay nuyu. ah baa ma naan doom ay maam la naan. kanam bii maa ko ne ko sa kanam bi di mel ni rukk mu jaral ko mu naan ay maam du yoon da juum daa sol ndox. barki Alaaji Fàllu moo ngi nooy tamit nañ waxante dëgg. wan keeso meeso reeso tangal manta fereeso mo sama fekki laa fekki fekki Laurent Ndiago voilà je ne daga sa yaram teg sa yax kii feegi dunku day fan góor kii feegi dunku day fan góor Bamba te naa de naa dugal ko ku léegi. Eh, dootu ko defati am dóora dootoo ko am am dóora dóora dóora feegi dunku nga bisaab nga da ngay yëbb dóora soo dóoree ma fekk sama xaay su dóoree ma fekk sama xaalis allah ji fallu su dóoree li maam am ma jox la am dóora man laalee rek laa laa laakee i ci doful dof dof luwul xamoo sax ku dof kii daf may jaxaseeg àdduna man xale laa sama deret day circuler mais du ma juum damay wax di neexal pour nit ñi ree mais man dara doona xam nga lan la wax kii xam nga la kii kii tey te may te la xam nga lan kii su ma xamee desitu hôpital moom laay waxal kenn ñaanul yàlla nekk hôpital mu naan ma yërëm ñu nekk hôpital kenn bëggul ku nekk hôpital moom laay waxal kii mooy desitu hôpital en plus feegi dunk la day faagóor bisaab la day yëb waaw booy je te tontu a wéy booy. yow doo bandi. man la Laurent Etienne doomu njaago bi seen sang Christophe la ñaa milikoo foo xam demal yàq say mbokk ngay wax ni booy ñaanalal sa jabar si lu neex mu eh. dama ko xamal lu bari yee yéen ñii man ngeen faral bu leen ko nëbb bu leen ko nëbb. mois. Eh, kii dama koy dóor du ma ko daan barki yàlla laa la waatal ni billaahi mun naa ñëw rek jàpp ko daan ko. dem waay kii man faral waaye su ma paree dafa may jox xaalis ma ñibbi. bës man faral yow jox ma sama takk dënn ba nga fi marié yàggul. kii maa kii sequñ dara. ah <laughs> kii daa soxor kii Copain la daan jadi jadi nëpp Malick Ndiaye 37 fu ñooñu duñ ba xaw ma leen ba ñuy bëre jamono ñoom Ndiaga Mbaye la lu yàgg yooyu man new ma si loolu noonu jamono 2022 la ñuy wax Etienne borom alliance gundal gaan bi borom lu ne pax di dagg di wàcc alliance mag ma la maan kii 2013 ba tey yónni ko kii yàgg na de laay man 2000 kii lañ ma yónni man bandi kenn du ma mettre en lu gën a neex si wax lu gën a neex si wax ji. billaay walaay taalaay du ma ko song dama kay dóor ba mu tëdd su ma ko songee yàlla naa dee moo may song ku yàlla bind du la song dama mën a bëre mais du ma ko song damay taxaw di xeex na ñëw jël. xale laa de ay booxa ay booxa na jël vingt c'est avec moi vingt yow dofoo dof dof loo xamoo sax ku dof yow feegi dunk nga dégg sama papa daa wax nee na ma papa jaasi yoo colonie yaasi yoo sama nijaay naa ma papa ceeni monique pékali yee mais gone yi dañ maa naan anooja ma gis ka maaña nu ka cëpp yaayi ndam ci papa a ah, tous tapet nga yow kii du bandi daa doon mettre gaay respect ecce na ngi lu xoola lu mu def du jakarta man naa lekk avance ba pare di jakarta waaw ci réseau xam nga newoon na leen bu leen lii nii bettu ma newoon na leen damaa yéeg si fas mu woo ma ne ma Laurent eh ma daw lool du dëgg waxaat na lii du dëgg. oh loolu man lay waxal man la ñëpp bëgg. ba jaxarta léegi léegi taxaw wa buuse buuse buuse Ketchup kay. non moom lañ tuddee drapeau bi. non xaaral buuse buuse. kii dafa bëgg micro ma nekkoo fii di waxante ak moom. waa kaay ñëwal. Eh, eh yow ta gis nga. ay dara maa koy woo ci ko man du ma la dóor man damaa xam règlement lamb règlement lamb da koo xam man sama déglu man du woo Ahmed Aïdara yow nga ni kii comédien na ñëw ñu xeex maak moom na ñëw ñu xeex du ma ko kaañ bëre de xeex laa koy waaw daan naan ay doom su ma naanee doom yàlla na ma daan xalaatu ma ko kii lu ko jaral lool kii mais donte moom paa la mag la mais bu ko dara jaral naan doom mi di sant booyee mais ay xale yu ndaw laay àndal yii buuju feeraay di ma jox man loolu ndam la si man damay daan di sant ñëpp du woo kenn. waaw buuse ñëwal buuse. woo ma nit. maa ngi ko xale ndaw yi di buuju feeraay di ma jox man ñooñu laa am ñu jege yàlla ñi waaw. buuse Ketchup. waaw say fils xaaral bare maa ngi nii sa combat combat bi dafa ni wuyu na boromam. waaw non ñaar ñi seen combat ñaar ñi mën am lu ne ci làmb hmm. ñoom nañoo am lu ne ci làmb nañ ko bëre ci fair ko bëre ci fair play bëre ko ci jàmm xam nga bëre ko ci salaam waaw kaay kaay taxaw nii Bousse waaw Fall maa teel jël taxaw ma déggoo ma da maa teel a jël wala nga booy si kanam booy yi. man tooy déggoo ma de da maa teel a. jërëjëf jërëjëf. déggoo ma de booy maa fe balaa neex saf dege. wala waxee dof yi saf dege. te safoo dege safoo dara sama yaram de. dama waas ba pare. yee dama xaa waas ba pare. xale laa damay contact. naanu ma ay doom. ronal bi ma doon gis ak bokkul dafa jeex bët. boobu la askan woon ndax du ma koy mën a waaye gërëm jërëjëf yéen ñaar ñëpp na poussé wa non Lamine ñaar ñi ñoom ñoom ñaar ñu taxaw di wax rek moo taxoon sax nga bàyyi leen kii di wax kii di wax parce que ñaar ñi damay gis sama bopp si ñoom xam nga ay xale lañ nekk ci làmb di neexal Sénégal yëpp bëgg leen mm-hmm. li ma leen di lancé rek mooy ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ samay mm-hmm. xarit lañ mais tey buñ ñëwee fii nañu wone bon exemple fair play man chaque jour ma def signature bu amul fenn te du ma dépassé du xeex du saaga du xuloo te ñoom ñaar mën nañu am lu ne ci làmb parce que nit ñi bëgg nañ leen. seen combat bi mën nañ ci am lu ne avant ak après. kon bu ñu yàq loolu ñoom ñaar ñëpp ah. man nag samay rakk lañ mais bu mooy sama mbër man moom la faral bu leen ko tuddee drapeau non man bu la affaire. làkk doom dóor doom la déedéet mais man coo jubul maa fa yàlla. kii maa moom démb la. yow da ngay sëñ Fallou rek drapeau bi billaay wallaay taalaay suñ ko tuddee ku dëkk jàmm gën damay bañ. waaw lii bu si sax kéem kii dañ ko tuddee noonu. non non bu Fallou rek. waaw mais loolu dara loolu dara. non man moom. maanaam dañuy wax ne moom lañ tuddee drapeau bi. yee yàlla naka ñaanal ndam ah naka ñaanal loolu yëpp yàlla na ma yàlla na ma yàlla suturaal yaa ngi dégg xam nga fu may waxee mais moom lañ tuddee drapeau na doon élément neutre maa ngi moom non non élément comme kay la tuddee drapeau li yëpp ay affaire la. mais sëñ Fallou rek. Eh. barki allah ji Fallou. lu yàlla di fekk jeexul. bu arbitre fekkee du ma daan ki yàlla naa barki leeru alxuraan. mais yàlla yàlla noppi na te dees man li teewul sama am. a wéer bar sëñ Bamba man aw ma jàppal gi nga man ay xale yu ndaw laay àndal dañuy buuju feeraay yaa ngi dégg dañuy buuju feeraay di ma ko jox barki leeru alxuraan samay der samay dernière sara ay xale yu ndaw a koy yu xamul dara barki leeru alxuraan yee di sant Liss Ndiago ak waa jàmm gën yëpp. ñi ngay sant ñëpp ay bar sëñ Bamba. yaa di sant képp ku dëkk jàmm gën. di jégalu ñëpp nag fekkee damaa jum xale laa. yaa doon maa ngi jégalu ñëpp. barki leeru alxuraan. ma teg la yàlla eh, naa. Eh, waa dégg nga bu bu te doy na. buuse naka nga nar a jàppale ñaari mbir yi dëgg la kii mooy sa mbokk. waaw kii sa jàpp mais man su ma sañee kii kii. waaw dëgg la xam naa waaw. kii sama rakk la. côté pied côté pied nan nga leen nar a jàppale. leen jàppale ñoom ñaar ñëpp. côté pied mais du bokk. waaw dinañ ko may pied di nga may kii pied. ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ kii sama rakk la. comme si kii ni mu nekkee sama ma li ma lay defal. naa ko def mais bu dee moom laa la wax léegi la sarax jàppale la nag. jox ko paas jox ko paas non jàppale ko garaaw léegi la sarax mais da ngay yaru booy du ma soog morom. jox leen paas ñoom ñaar ñëpp. loolu demee nag. yow Boucher sa waay la sa combat bi paas jàppoon na ci. wil wil wil xaalis rek la bëgg xool eh, ko.